salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum euh, mbokk internautes yi ñuy seetaan di euh, seetaan Marodi TV euh, bi nga xam ne dafa xew si jamono fan yëpp maa ngi koy gis artistes yaa ngi jaar di jaaraat donc ma leen di nuyu di leen félicité ah, di leen di wax dal leen ak jàmm ah, yéen a ngi ci studio 1000 Mélodies. waaw baaba am di temps yëpp dañoo seetlu ne da ngay def ay ficturine yu bëri ku si mel ne Abiba yow ak Wally Seck aussi annoncé nga ko mais ba léegi gisaguñ ko mais ficturine yu bëri yooyu lan nga si jublu. Euh, bon c'est vrai que xam nga rek affaire artiste quoi artiste moom ak ay jabam quoi day dem rek quoi euh, moi j'aime partager loolu sens du partage la dans le métier euh, c'est vrai que defoon naa ak benn ak Abiba et vraiment mu nekkoon ben affaire bo xamné euh daf ma euh mom aussi mu neex ko trop xam nga euh, après ben jour ma nekk fii di defar euh, son bi xam nga mu dégg son bi ma ne ko Abiba dugal nga defal ma benn kër fii ci son bi elle est rentrée dans la cabine et wow affaire bi jox ma beneen affaire quoi et ça voit vraiment ça sonnait très bien mais lan moo la pousser jabar. parce que euh, j'ai prouvé euh, le besoin de le faire parce que tout simplement j'ai passé énormément de temps au studio et énormément euh, de courir de gauche à droite après maintenant, non il faut que je me suma soxna xam nga parce que boo les artiste boo xam ne yow da ngay liggéeyal sa bopp di liggéeyal ñeneen ñi ba doo am vie familiale et à un moment il faut nga delloo njukkal euh, ki nga nekkal tuuti quoi. mais est-ce que sa jabar aussi forcé wu la pour nga way ko. non man dama sama jabar day bañ sax yëgu ko woon sax quoi man sama jabar elle est effacée quoi tu vois elle est elle est très effacée euh, duñ koy sax gis quoi. Mm. Baba di en tant que producteur gis nañ ni da ngay gérer ay carrière artiste ku si mel ne Viviane Chidid est-ce que mën nga ñëwaat tuuti wax ñu seen collaboration kañ nga commencé. Euh, sama collaboration ak Viviane ça date de très très longtemps euh, xam nga dafa am ci loo xam ne dañ ci tàmbale woon euh, mooy ma commencé woon ak moom benn single ci benn albumam xaw waa je pense c'est un single mooy yaakaar yaakaar. moom mooy bi muy bi muy wax waxu dëkk bi quoi xaw ma ndax yéen a ngi fàttali morceau boobu euh, ma bind morceau bi euh, bi ma ko bindee ak Hakim def composition yi xam nga ñoom abi fay def musique bi. mais li nga doon gérer carrière am yëpp mosuñu la gis nga def duo ak Viviane Chidid lan moo koy expliquer. Euh, parce que parce que man bi may def ak bi may job ak Viviane j'avais di publiquement et ouvertement que dama jël sama carrière. mettre en stand-by ça je l'ai dit ñëpp di ko dégg là je suis très concentré sur Viviane ça j'ai été très honnête et je l'ai dit ouvertement Maman Bobo, euh, defuma m'a ben ben, kii qui à part album jazz si def ben, benn sama ci hommage à Omar Pène et moi moo way ci euh, Beyrouth donc euh, comme c'est du jazz xam et généralement ay cœur lay jël ñuy def euh, ay voix de femme mais Beyrouth bi elle l'a senti elle a posé ses voix. mais rumeur yoy doon daw naan dañ ko tak tak souf ñi naan da ngeen nekkoon en cours. non j'ai dit je ne vais pas répondre à cette question parce que tout simplement euh, je n'ai jamais répondu à ça c'est ma vie privée c'est ma vie privée c'est ma vie professionnelle suñ ma ci laajee fi ba suba mun na ci wax mais ma vie ma vie privée c'est ma vie privée la quoi comprendre et euh, je vais pas être là ay at nit di pas être laaj Je ne pas être là. Je ne ne ne sax tontu ma là. mané ne je ma pas amul sens vie privée vie privée et euh, Viviane artiste bu pas la là. xamné nit mom kenn du lam pas mën wayam ak qualité c'est <laughs> donc boo fi di Ah, yaa ngi lam-laamee di ko suñu borom dénk quoi la vie elle est comme ça rupture ci aduna fi lañ ko fekk ah te rupture sax amul mun naa leen xamal tey ma leen rupture amul sama diggante Viviane Viviane euh, il m'arrive des fois il arrive des fois mu am benn entreprise bu ma wala ay nit yu ma woo xam nga et tout de suite j'appelle ne ko nangam nangam nangam pour Viviane il m'arrive ma am idée pour moom je l'appelle moom directement ma ne ko am naa idée bi eh mu def ko. au-delà lutte vocale bi nga yëngu nga lay gis aussi ci ay compétition musicale di si mel ne seen petit nga bokkoon ci membre jury yi ban expérience nga ci jot a am. Euh, expérience bi ma ci am euh, bëri na. parce que parce que je moi moi moi je veux dire de sax expérience bah expérience là bien sûr mais li ma ci gën a euh, neex ma ci jox cër bi mooy ci jury bi man ma gën ci nekk xale ñu ne yow président du jury ça c'est un honneur pour moi c'est fut un honneur pour moi et maintenant pour revenir à ta question expérience bi ma ci am euh, assisté na ci ben concours bo xamné euh sa ay doomu dëkk bi ñoo fi nekkoon ay xalé xam nga ki joggé Thiaroy ki joggé Dakar banlieue kii jóge euh, Tamba ñele joggé Mauritanie xam nga donc c'est des choses yo xamné tu les vivais et c'était très très fort ma gëna marqué ci Sen Petit Gallé et ki gëna marqué Sénégal je pense Sen Petit Gallé moy Saliou je ne sais pas ndax yéen ngay rappelé Saliou Saliou ñu ko doon éliminer dañ ko doon waaj a éliminer balaa mu doon dem sax quart de final du ma ko fàtte mukk man maa taxaw ngóone ne lii du fi am dafa def erreur ci morceau bi ci la commencé def après ci la jury bi retiré wu ñu dem ci ginnaaw ñu consulté wu après ngóone daal di ma baaba bëri na dañ koy duñ ko éliminer éliminé. C'est vrai qu'il avait mal interprété ce morceau. Je ne me rappelle plus de ce morceau. xamatuma ban morceau la xawma ndax ko morceau Coumba Gawlo la ou bu morceau Seck je ne sais plus mais il l'avait mal interprété et euh, bi wax ji après ñu ñu retiré mais parce que c'est loolu mooy concours ah bi ñu retiré woo dem ci après euh, y avait il y avait il y avait man Xuman il y avait, il y avait tout le monde. Après, après euh, Gone m'a dit, mais Baba, le dernier mot te revient. yow le président au jury bi ne kon ma ne ma kon kenn ko éliminer ko chance am. mais est-ce que vous nañ fait fay amoon ngeen ay salaire ay commission. Euh, non moi tout ce que je fais dans la musique généralement euh, c'est vrai que am une partie yoo euh, il faut être rémunéré euh, ci musique bi euh, mais am mais petit galère je le faisais par passion hein. euh, ça parce que la femme ben moment trop trop trop trop trop donc je suis Dakar dans le daanul et je me suis dit euh, lii bu son, songu si je suis absenté bi une émission bi ma fi une émission et là ça peut causer vraiment un problème et j'ai eu l'honnêteté de me retirer de dire bon je ne gars pas ma parce que ren j'ai énormément de contrats ay Gabon Paris Cameroun ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite. problème ak non non non non je n'ai pas de problème avec euh, je n'ai pas de problème ak euh, membre sen Petit ou les nous les organisateurs déggoo man la man je je ne veux pas man je ne veux pas xëy ni def ma ennemi mais man du def ennemi non je n'ai aucun problème. Baba Amdy en tant qu'artiste et producteur tey tu doon def ce bilan est-ce que tu es satisfait de toi. satisfait non je ne suis pas satisfait de moi satisfait euh, ba kéro ba bañ may sul mom du ma satisfait lol mom mom xalaatuma ko sax. Euh, pourquoi. non mais parce que tout le temps la am affaire yo xamné ce n'est jamais parfait. Un œuvre d'art n'est jamais, euh, comme on dit, n'est jamais fini, quoi. Je veux dire, tu as là, tu veux des tu quoi. Mais bon, on défaire peut-être mon bilan par rapport à certains artistes sénégalais, ce que j'ai eu à faire, sur ce point, je suis satisfait. Je suis très, très satisfait. Sur ce point, je rends grâce à Dieu et à son prophète. Sérieusement, sur ce point, je suis très, très, très satisfait. Sans parcours e, obstacle sans parcours musical le pas obstacle je ba tey mais obstacle euh, c'est c'est la manque de reconnaissance de de certains artistes lolo moi il me ma metti ci parce que manque de reconnaissance bugguma ko waxuma sax ci waxu artiste ci diggante doomu aadama ak doomu aadama asantuma lak nit ki nga xam ne guddil na la bëccëgal na la seyam yëngu na tey doo ko yëg après yow nga dem tëdd di naaw yaa ngi réfléchir noo koy bindalee yaa ngi réfléchir nooy créer air bi muy wayee yaa réfléchir yan musicien ngay wo xam nga di ci am ay problème di ñibbi heure yu nekk xam nga et morceau yooyu day génn yàlla def ci baax barke xam nga et je le dis au effort, fort daf ci bëri ñu nga xam ne ils sont pas reconnaissants pour le travail que tu fais parce que parce que Baba Amdi ak labelam Mille mélodie. nekkul ne daf lay jël rek arranger le morceau dem musut am et je me suis tué pour certains artistes j'ai défendu énormément d'artistes taxaw naa ñu may ñu teg ma ay toor ma noppi te toor yooyu jógewul ci man mu jël rek ma nangu dem suma yoon te yàlla xam na ne aw ci toor artistes yoy boo leen di am nañ honnêteté dinañ la né ah baba de def na liggéeyam indi nañ fi affaire bi nangam nangam mën na wax ne fii à part Youssou Ndour à part Youssou Ndour bi produire ay artiste man maa ci topp ki nga xam ne jàppale naa artiste ba sonn ñenn ñi sax fàtte naa seen tur dañ lay compter aussi fii ci Sénégal ci artistes yu engagé parce que temps yi génnee nga benn audio gis ne dañ ci attaqué gouvernement Macky Sall naan réew mi dafa metti dëkk bi dafa dëgër yow ban Sénégal nga bëgg gis. man nag lu wax man man man yow man man kii laa doomu militaire laa man sam papa il était officier donc munu ma wax lu dul dëgg doomu jullit laa dafa am nuñ ma yare euh, ci di que le que le pays va très bien day wax lu ko neex. loolu loolu amul kenn kuy toog fii président bi ci boppam boo ko laajoon danaan la lépp doxul moom président bi dina la wax loolu mais am na côté dox mais je dis le pays est difficile le pays est très difficile tey jii li tax ma wax loolu lenn la woon pompiste bi interpellé na ma keneen interpellé na ma ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que occasion bi ma am ñëpp amuñu ko. mais ben jour ben pompiste daf mané ne mais yéen am di lu tax ay waxu ay grand théâtre ak fecc ak waay rek ngeen di wax xam nga waxal wax len wax len di xaw ci dëkk bi et vraiment affaire affaire du bëri quoi liñ may wax lolu bëri et j'ai vu que le pays va très très mal dafa metti dafa metti torop torop torop torop dafa metti ba nga xamné ne euh, j'attirer leur attention pour leur dire attention immigration clandestine bi bu ngeen moytul dina amaat dina gën tar attention bu ngeen moytul ces enfants ces jeunes mak ont ndaw yi nga xam de dañuy jël alcool ak drogue dina vont continuer attention su ngeen la prostitution va continuer dina gën donc j'attirai sur la sonnette d'alarme pour ñom ñu bayyi xel hormis musique bi da lay gis aussi ci ay projet de cinéma gisoon nañ la temps yi benn teaser nga nekk ci également dégg nañu da ngay def ay casting loolu lan nga ci jublu. Euh, on a eu plus de 25 épisodes en boîte yoo xam ne ñu ngi koy monter comme comprendre nga euh, série ça coûte très très cher ça coûte excessivement cher xam nga nga nar ko def ak fonds propres ak ñi lay dimbali s'il y avait pas xawma ma ndax nit yooyu bëgg nañ ma tudd seen tour xam nga euh, yenn ndimbal yi ak ba ci tala production peut-être du ma ko mun def ak même ba ci acteurs yi du ma ko mun def mais malgré ça c'est énormément de millions énormément parce que série bi fi ko fi ko bëgg a la comprendre nga et lu Baba Hamdy c'est c'est la maison de production Mille Mélodies qui qui voulait produire benn série. tey jii boo génnee si studio yan activité ngay faral di def. ah oui damay li may def mooy waxtaan waxtaan dajale booy fi ah, ah am ñu bëri nag yoo xam nit yu bëri yoo xam dañuy ñëw fii bu guddee ñu ci wér ñu ci ànd ak seen xel trop bëriwul dañuy toog ñu waxtaan am ci ñoo xam ñu ci bëri aussi ñi nga xam ne ànd ànd nañ ak seen xel damay waxtaan ak ñoom ci àdduna parce que moi j'ai reçu trop de coups ki mu ki jël coup limo la mun wax defal nii mooy li ma li ma li yusu wax il m'a dit une fois yow sama rakk nga ñëpp xam nañ ne sama rakk nga mais baaba ki la ëpp expérience moo la mun wax raccourci bëgg ñu ñu waxtaan ma wax la raccourci il a parfaitement raison. Et de la même manière, je fais la, je fais la même chose. Moi, toute ma vie, on m'a aidé. Toute ma vie, on m'a aidé. Donc, il n'y a pas de raison. Parce que l'autre, ça,